sëriñ cheikh may mbàkke sëriñ cheikh may mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1930 ci dëkk bu sell bii nag di mbàkke bawal ci dëkk bii nag di mbàkke bawal nag la feeñe jamono ci atum 1930 di doomu soxna may munatu mbàkke bintu sëriñ tubaa xaadim rasuul ak sëriñ moor soxna mbàkke ibnu mamor jaara mbàkke moom sëriñ cheikh may nag am na ñu mbokkal soxna may munatu mbàkke ak sëriñ moor soxna mbàkke ñu man cee ràññee rakkam ja sëriñ moor may mbàkke ibnu soxna may mu mbàkke ibnu sëriñ moor soxna sëriñ moor may mbàkke mi muy feeñ jamono nag dafa tombeek waajuróom wa génn àdduna ñu duppee ko nag waajuróomam wa sëriñ moor soxna mennum sëriñ moor may rek nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen am na ñeneen nag ñum bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu waajur wu góor a ñu mën cee ràññee taawu soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa xaadim rasool ba di sëriñ mustapha may mbàkke ibnu soxna maymunatu mbàkke ibnu sëriñ moodu abib mbàkke ibnu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ak ku ñuy wax sëriñ hamdi mbàkke ibnu soxna maymunatu mbàkke ibnu sëriñ moodu Mamun Mbàkke ibnu maam Cheikh Anta Mbàkke soxna Toora Mbàkke bintu soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Moodu Mamun Mbàkke soxna Yakkale Mbàkke bintu soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Moodu Mamun Mbàkke sëriñ Abo Mbàkke ibnu soxna Maymunatu Mbàkke ibnu sëriñ Moodu Mamun Mbàkke ñii nag la bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu nag waajur wu góor bi mu matee dal alxuraanul karim maamam sëriñ Mbàkke Buso nag lañ ko jébbaloon ci Gédé ginnaaw bu ko sëriñ Mbàkke Buso nag dalalee alxuraanul karim ba noppi la ko sëriñ Mbàkke Buso nag yóbbu nag ci dëkk bii nag di daarul xaddiima jox ko fa nag ku ñuy wax sëriñ bu Bousso faati Kandi ab diir bu néew nag la def nag ci loxoy sëriñ bu sa Fati Kandi ñu jox ko nag sëriñ Cheikh Bousso Fati Kandi sëriñ bu Bousso Fati Kandi nag moo wéel am njàngam ba mokkal nag alxuraanul karima ci dëkk boobu nag di daarul xaddiima bi sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi di wut nag ñu ko nekkal nag ci dëkk boobu nag di daaru Rahman ngir nag di jàngale la ko sëriñ Mbàkke Bousso nag booleeg sëriñ Cheikh Bousso Fati Kandi yóbbaale na doomu soxna Maymunatu Mbàkke bii di cheikh may mbàkke ci dëkk boobu nag di daaru raxmaan ci dëkk boobu di daaru raxmaan nag la sëriñ cheikh mbàkke may tàmbalee jànge nag lii di xam-xam ci loxoy sëriñ cheikh busa faati kandi ginnaaw daaru raxmaan itam nag jaar na kër kàbbu ci loxoy sëriñ cheikh busa faati kandi ginnaaw bi nag la ñibbi siwaat géde ci kër maamam ñu jox ko nag sëriñ asan buso muy doomu sëriñ mbàkke buso mu wéyal nag am njàngum xam-xamam daana jànge itam nag ci bàyyi sëriñ buso ilimaan ci bawal nag te sëriñ cheikh may feeña fa jamono ñaari góor yi ko séq nag di soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xadim ak sëriñ moor soxna mbàkke ibnu mammoor jaara njàngum sëriñ seex may li ko dalee nag ci maamam sëriñ mbàkke buso sëriñ muudu faati kandi sëriñ cheikh faati kandi sëriñ asan buso ba ni mu ñëwee nag ci loxoy nijaayam nag sëriñ tubaa cheikh abdou xaadir mbàkke bàyyi la mun jóom nag mi ñu koy tënkal ci ay way nag ñu lu ko sëriñ cheikh may sunu maam moor soxna mu jaaratu la tudde jikkoy suñu doom lamboo ay meloom di meloom neuf cent trente la feeñ baraxalu mbër judduwaat Cheikh Ibrahima Fall lamp at mii kay la wujji borom suñ seexu naa may ci at mii nag la feeñ li lee moo tax nag mu am taalibe Cheikh Ibra kenn du ko miim Cheikh Abdou Khadir di taarix bii de mooy ki ko wax nijaay leen xam la lu mu wax kenn du sikki ko moom Mbàkke Bawal dëkk bee Cheikh Bamba feeñ fa la feeñ feeñam nga feeñal na ay mbóot yooyu jërul tudd ñoom ma wax ba tàmbalee jàng xam-xam foofa ba mu sori moom fa Daaru Rahmaan ak it kër kàbb am na fa sax ay taalibey laxasaay ngir jub ga nekk ci moom sëriñ Asan Buso moom sëñ Mbàkke jànge na fa posté bu rëy la fa feeñal ak jëm ak itti moom moom sëñ Asan lu mu aajoo waa ci yooyale saa sëñ Seex Maye doxi aajoom yooye yëppati moom ginnaaw bu mu ñibbisee am njàng nag la ko nijaayam nag sëriñ Tuubaa Seex Abdu Xaadir Mbàkke nag féetewoo toftal ko nag ci boppam mu sës rëkkitim nag ci ginnaaw nijaayam nag sëriñ Tuubaa Seex Abdu Xaadir Mbàkke féete na nag fu yaatoo yaatu nijaayam ji nag di sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke boo xam ne ni sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke nag daana ko dem te mënu koo dem jarbaatam bi nag di sëriñ Cheikh May Mbàkke nag la koy yónni bari na ñoo xam ne nii itam nag sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke nag daana leen dalal alxuraan wala war na leen a dalal alxuraan su amul woon jot sëriñ Cheikh May nag la leen di booleel nag ngir mu dalal leen alxuraan bari na itam nag ci taalibey Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke yi seeni njaboot itam nag jaar nañ nak ci loxoy sëriñ Cheikh May Mbàkke bari na itam nag ci taalibey sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke yi ñoo xam ne nii bi ñuy am aw tur sëriñ Cheikh May nag la ci ginnaaw nijaayam ba nag ni fi nijaayam bàyyi ko ci atum 1990 tax na nag mu nekk ku maandoo maadu maandu googu mu maandu woon nag nijaayam mu mamadul moustapha mbàkke nag seedeel na ko ko bi sëriñ cheikh may nekkee tur tànk am na bis nag mu ànd ak waajuram soxna maymunatu mbàkke mu doon ziyaare ji nag cheikh mamadul moustapha mbàkke keroog bernde yi tegaloon cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ cheikh may raam na ba jub ko daal di dëppaat cheikh mamadul moustapha mbàkke nag di xamal nag waajuram soxna maymunatu mbàkke xale bii de ku maandu la ku fekke ak magam da nga gis nag ku maandu maandu googu mu amee woon nag te nijaayam cheikh Modou Moustapha Mbacke seedeel ko ko bi muy jàng nag ci daarul xadim kenn nag ci donga yim doon jàngandool dafa yoroon nag cere moroomi dongaam yi nag di ko ñaan ginnaaw bu mu ñëwee nag di ci may sëriñ cheikh may Mbacke sëriñ cheikh may Mbacke nag mi nga ko doon laaj nag lii foo ko jëlee mu di ko xamal na sama néeg waajur wu jigéen nag laa ko jëlee sëriñ bi nag di ko laaj ba xam sa waajur wu jigéen moo la ko jox waaw wala déeta mu di ko xamal na sama yëfi la sëriñ bi di ko wax ne mayal kaneen man Mansour yëgu ko ba tey ci maanu teg sëriñ Cheikh May Mbàkke nijaayam sëriñ Touba Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke dafa am nag ku mas a di ko la joxoon ko laaj nag ku mu ko joxoon mu sa jarbaat nag sëriñ laa ko joxoon sëriñ bi nag di ko xamal ne sëriñ Cheikh May loo ko jox nag danaa ci jot ba tey ci maanu teg sëriñ Cheikh May Mbàkke waajuróom wu jigéen mi nag di soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Touba Cheikhul Xadim mas na koo dénk nag lenn nag ci ndénkaanam di ko laaj nag ba am lum ca fàtte ginnaaw bu sëriñ Cheikh May lay toogee nag diir bu yàgg-yàgg nag te soxna si laaju ko ko la ko ko yit di ko xamal ne lii de dafa mel ne da nga koo fàtte ci ndénkaan la bokkoon soxna si nag di ko xamal ne sëriñ Cheikh de ku ma jaaxal nga sa alal sama alala sama alal itam nag sa alala lii nag leew na la doom nag mënoon nga koo jël nag jëfandikoo ko sëriñ bi nag di ko xamal ne ba nga ma koy jox nag waxoo ma woon loolu dencal ma nag nga ma waxoon soo delloo nag ci mbindum bàyyi Lamin Jóob di bindkat ma ngay wax nag jikkoy sëriñ Cheikh May ci mu meloon nag ba muy tuut tànk nag ba ni mu nekkee mag moom la ñu Baay Lamin Jóob tënkal nag ñu teewlu ko maandoom gi fa mu dooree lu yàgg la lool teetal ko toll ci daw nii nag di raam ni ci rom wax nañ ni mel atam muy toll rekk ci raam la raam ba romb lu ñuy mos waxtu ndikki la moom mu jël ko yëkkati dem bay lekk daal di tegaat ca tab la jëm nekk lekkul lenn lenn ci moom Cheikh Moustapha Mbacké taaw Bamba moo fa ne moo soxna may la nijaayam wax di lii de la moom Cheikh Moustapha dani kii doon daw ba noppi di daw lu dee fi daw ba du mos ñëm wii te xiif na

lañ koy wooye moo di am yi nu jiidihi loo ko dénkaa moom bu sàmm ko moom Cheikh Abdou Khadir daa am waa ji ñëw di ko laaj yóbbante baa joxoon ndax ñëw na jot nga ci moom mu laaj ko koo joxoon muy wax ne kam ko joxoon sëñ Cheikh mu wax ko ne loo koy jox mu yët ma ko moom du tàbbi jim lënt loo koy jox mu jox ko boroom du war boroomam du war boppam du lay ak amiim ma wax la benn bu yéemo yéemo ngay gën a yéem nga xam ne sëñ Cheikh mayum maam may ba jox ko ko nag moom soxna may ni ko naanu meew mi yaay ki ko moom saa yëf yu nekk séef ñooyam te lew na la nag boo xiifatee gis lu mel nii jël ko lekk ko moom moo wax ndigal laa amul woon sàcc kenn warul te na waajur ndey ak bàyyi wattu leen ko di doom mi lay doomam mu dénk ko bis dénkaan yooyu ko ca aw raw faaw mucc ci juum daa wax ni sëriñ moor ba boo ci duggee basanga nekk fa bul koy lal ci boobale rom toogal fi suuf rajo it fekkee ni fekk ko jaayoon yow xanaa da nga juum fukki dërëm yi lay kat xam naa ne yaay ki ko moom téeméer la daa jar te kon lii nag du yëf yi moom moom borom bi di ko ci boppam waaru yému jo lool mu laaj ko foo dëkke Touba sant waat bu mu doon mu wax ko turó di mooy Seex Mbàkke sant wala saab dëkk Touba sa laaj bi lan nga jubli ci moom borom bi ba ni man jii maandu kat musuma gis moos gu nii ku nii sang dëgg la moom mu wax ko fukki dërëm yii njëg gi wàññi a ba ñoo yemee ñoom moom daana yor fukki ndénkaan nag ba noppi mu am soxlaam ci weccet lu mel ni junni nag bu mu moom mu war ca wecc ko di yónni ñu wecc ko ko wecc ko weccetu jàmbur nee na tooñ la de moom daanañ ko dénk ci xaalis lim takk mu xëy di jaaxle dépasse du tax muy la pikk ni moom ndax nee na kuñ dénk dañ laa wóolu jalgate ga moom mooy toxal abbu weccee mbaa nga leb ca de moom ndax yoo xamoo léegi li ñëw soxla lépp te yow fekkee nga fee samp kër nijaayam nag moo ko sampal kër boole koog doomu sëriñ Ceerno Buso Daaro ju ñuy wax soxna May Buso mook soxna May Buso nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag kam woon waajuramam wa soxna Faati Ja Mbàkke ak kam faye waajuramam wa di sëriñ Moor soxna Mbàkke ak ku ñuy wax soxna Mbeen mbakke ak kam faye nijaayam sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke ak kam faye maamam nag soxna Aminta Kandi Buso ak kam faye sëriñ Tuubaa Cheikh bu Mbàkke di sëriñ Abo Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Seexuna Mbàkke njaboot gi nag la soxna May Buso moom moom sëriñ Ceerno Buso Daaro am ak sëriñ Cheikh May sëriñ Cheikh May nag yoraatoon na beneen soxna bu ñuy wax soxna Maymunatu Mbàkke moom sëriñ Seexu Mbàkke bu Daaru Salaama mook soxna Maymunatu Mbàkke nag am nañ nag ak njaboot ñu man cee ràññee soxna Maymunatu Mbàkke di kam faye waajuróom wa soxna Assu Gaawaan Mbàkke soxna Xadi Mbàkke ak soxna Maam Buso Mbàkke ñaari soxna yéen ak la sëriñ Cheikh May Mbàkke dëkkoo woon njaboot yi itim nag la ci am ngir xamale leen nag njabootuk sëriñ Cheikh May nag ñoom ñooy ñan doomum sëriñ xalil mbàkke moom sëriñ moustapha may nag lañ ko jébbaloon ba tax na mook sëriñ xalil mbàkke moom sëriñ moustapha may nag am nañu ak njaboot ñu mën cee ràññee ci loxoy sëriñ xalil mbàkke moom sëriñ moustapha may lañ ko jox nag sëriñ mbàkke moom sëriñ moustapha may mook sëriñ mbàkke nag moom sëriñ moustapha may tim nag am nañu ak njaboot ñu mën cee ràññee maam aminta mbàkke doomam ji ñuy wax soxna mbeen mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ mouhamadan buso moom sëriñ abdou samad buso moom sëriñ moo buso nag nag lañ ko jébbaloon ba tax na mook sëriñ Mouhamadan Bousso nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Basiiru Bousso soxna Aysatu Bousso soxna Màggat Bousso sëriñ Saaliwu Bousso sëriñ Jiili Bousso sëriñ Abo Bousso soxna Maam Jeng Bousso ak sëriñ Cheikh May Bousso doomam ji di soxna May Munatu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Alaaji Mbàkke moom sëñ Ismaïla Mbàkke moom Maam Moor Jaara nag lañ ko jébbaloon ba tax na mook sëriñ Alaaji Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ko ñuy wax Maam Moor Maam Bousso Mbàkke soxna Nday Mbàkke ak soxna Maam Fa Faama Mbàkke doomam ji ñuy wax maam Busa Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Moor May Mbàkke nak lañ ko jébbaloon ba tax na mook sëriñ Moustapha Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke doomam jii ñuy wax soxna Xadijatu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Maamun Mbàkke bu Daaru Salaam nag lañ ko jébbaloon ba tax na mook sëriñ Muudu Maamun Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Cheikh May Mbàkke soxna Maam Anta Mbàkke doomam ji ñu wax soxna Assu Gaawaan Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Maam Sayer Mbàkke lañ ko jébbaloon soxna assu gaawaan mbàkke nag mook sëriñ maam sayer mbàkke nag amuñu ak njaboota laataa mu fay amuk njaboota la soxna assu gaawaan mbàkke nag génn àdduna njabootu sëriñ seex mbay mbàkke nag gu jigéen gi njaboot gii nag lañ am amoon na nag ganeen njaboot nag guñ tudde nag ay donga ci biir góor yàlla yi àndoon ak sëriñ cheikh mbay mbàkke nag di liggéey ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ cheikh ndiaye sëriñ alioune sarr sëriñ ousmane kebe sëriñ malik lo sëriñ elaaji mbay sëriñ cheikh aydara sëriñ ibrahima diop ak ñeneen ak ñeneen ak ci ay góor yàlla nag yu mu àndaloon ci dëkk boobu mu jànge nag di kër kàbbu amoon na fa itim nag suuf bi muy jàng foofu am na nag ay góor yàlla yu ko fekk foofu sax jaayanteeg mooma amoon na fa ay tool nag di bay lépp loo xam ne yu nag mas na faa ñor ay nijaayam nag la ko yit rawate na nag kii muy xoole xaadim rasuul di sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke sëriñ Cheikh May nag amaatoon na suuf ci wetu Gédé suuf soosu nag takke nag lañ ko doon wax ci doyloogum doyloo woon sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo taxoon itim nag Cheikh Abdou Khadir Mbacke itim na ko Xaadir Mbàkke itam nag daana ko yónni ci mbooleem taalibe yi noonu ko nijaayam sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke doyloo ni la ko mbooleem nag nijaayam yi doyloo moo xam sëriñ Soye bu Mbàkke moo xam Cheikh Murtada Mbàkke moo xam sëriñ Tuubaa Cheikh Saalihu Mbàkke tax na itam nag njabootuk sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke gi lu ci takkoo takkoo takku nag moom moo leen jàngal alxuraanul karim njabootuk Cheikh Murtada Mbàkke itam nag naka noonu leen itam nag ci doomu mag ñeeg doomi cheikh yi itam nag naka noonu yéemu googu woon ko boo delloo nag ci mbindum Baye Lamine Diop ma ngi koy leeral nag lu bare bare bare bare ci jëmm ji nag di sëriñ Cheikh May Mbàkke Cheikh Abdou Khadir mas naa bind wax ko ci wax juré ju nag mosu ko wax nag keneen ku du moom al ibnu al barru wala aqu shafi la wax wal hubbu al aqar al muridu saadiqu moom moo tax mu jënkoon njabootam gi jigéen la ca war ci njàng moo leen ko jàngal ñëpp jaar na fi moom te soxna moomi ba soxna ami mii gën a ndaw ñu nekk moom jàngal na yu takkoo takku daa nañu xëy di dem këram yenn foofee kenn du weddi ci ñoom Cheikh mboolem aw ñam te wóoluwu ko ñooy bokk añ bokk reer sëñ bi daana ko yéem lu jëm ci diine mu dib sëy mbaati tudd itam fu munta teewo de danaa seex may ne dem tuddi moom ngir ñëm tuddal doom ci kër yii yëpp xóomoo ko man mbàkkee bu sow bokkam lépp lay tuddi doom lim takk ci sëy bu doon ay say mu mat sëkk per yu wër sëkkub néeg ba sàkket peree bañ fatt ñoom te ñun teral bu ñu booloo woon mu mat dëkku lëm ñim ñaanale dana mat am réew mu mat sëkk moom baraana koy tukki daal koy ko ki xéewal moodu yaa ngi ñoom laaj leen ba xam luñ xam ci ma la wax la te moo gën xaas dafay dale moom sëñ Fallu Mbàkke ne jaayam moo nu wax ji la wax daa am ku ñëw nag ni ñaanu xaas la bëgg di moom sëñ Fallu wax ko ni xis laay def ndax xaas di dalul amul solo xis dafay dal Fallu bokk ci moom ni mu soppe maama bi sëñ la soppe ba tey soppem ba ba diglu nii la xuuse ci moom man mat lu nuñ jóob ba may dem Màkka tàggu ji ko daa téye saa loxo yi ñaan nag lu yàgg sa ngirim ma yonneen ba boo àggee ba biir Madina saahite muy lii lu dul lii amu soxla ci moom keroog ba may teew ci réew du Moustapha di siyaar daawut téléphone di jokkoo ak man ba jooy na fa moom ku laajal ma doomam mooy ka jokkalinu Cheikh Jibi mi mi ngi nii laaj leen mu tontu ci moom tàndarma jaa ko indil ngir addiyal ko ko it saalame sax moom da koo dencoon ba ni mu demee moom ak perméable gu mbindu Màkka mbaa Madina moom sax da koy denc ngir warmal ko kenn du moom ni mu def ci maamam Serigne Touba jërul di guddal ma indi firnde ju ak xër ga dëgg ci moom télévision benn yoon lay xool ko at mu ne nag muy bis bi ñuy génn màggal la ak yoneen bi sëpp ko moom moo xam ne suñu si xamaa ak nijaay seen diggante yi ñoom sëñ sony bu daana am weer nag këram di bind yu sëñ bi daa aajowoo ciy gëstu yu wax ñoom te boobakat ma nga yor kër nag mu bàyyi këram di wut ngërëm jënd jaayam weeru bët sëkk moom moo wute ak gars yi tey jii koo ci téye ba ngoon bëggoon mu bindal la ab leetar moo woon la jikkoom diggante sëñ Cheikh Maye ak sëñ Murtala ba tey lu yàgg yàgg la déglootil ma wax la ci moom xamal nag benn yoon lay mas di génn sunum réew nag te sëñ mu ànd lu mu lay wax de def ko de moom lu mu yàgg-yàgg ba koy gaaral te lu mu lu digal njëriñ la doon loolu bu feeñee doy la nag sëkk moom warmaal gu réy gi mu warmaal suñ bi suñ mag bi ak yi doomam gisal nii la def suñ murtalaa di ko yéem suñ murtalaa dafa jullee ajjumaa fa wetam ba noppi ñëw ba ci suñ seex may mu jox ko loxo ñi saafaxante suñu seex wax ni lii dafa rëy doomi sëriñ bii di jóg ngir moom di ñëw ba fi moom daa di bàyyi barab boobee jullitu na nag lu takkoo takkoo takku ay waajuram waajuram bii ñuy wax sëriñ Assane Bousso ibnu sëriñ Mbàkke Bousso bokk na itim nag ci ñu jàngal sëriñ Cheikh May jikkoy sëriñ Cheikh May nag lu neexoon nag sëriñ Assane Bousso la bi mu koy jàngal lu bare bare bari nag daana ko yónni nag sëriñ Cheikh May baa mu ko daa defloo nag sëriñ Cheikh May am na nag ay lettre itim nag yu mu bind sëriñ Cheikh May soo delloo nag ci lettre bii mu bind sëriñ Cheikh May ca tàmbalib lettre ba sëriñ Assane Bousso nag ma ngi koy xamal ne ginnaaw bu ma la nuyoo nag nuyu bu mat sëkk yow ñi nga xam ne nag yow yaay doom ju tedd ji di sëriñ Cheikh Mbàkke mi nga xam ne nii nag ab soppe la nga nekki nag ku yeewu ñu teewlu nag lenn nag ci lettre nag bu ko sëriñ Assane Bousso bindoon amma baadu asalaamu taamu alayka ayyuhal waladu najib soo delloo nag ci ñaareelu lettre nag bu sëriñ Assane Bousso bindoon sëriñ Cheikh May Mbacke lettre bi nag mi ngi bàyyeekoo ci man yow nag sama doom ju baax ji yow ku barkeel ki sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke maa ngi lay nuyu nag gën ngaa sellug nuyoo maa ngi lay nuyu nag gën ngaa rafetug nuyoo yow doom ju baax ji ñu teewlu nag ñaareelu lettre nag bu sëriñ Assane Bousso bindoon sëriñ Cheikh May Mbàkke lettre yi nag ñi ngi jéggulu ci li des nag ci lettre yi dañ leen doon wan ne rek sëriñ Assane Bousso waajuram yi fekkante moom jamono ñu ko fonkoon lañ te ñu ko respecté woon lañ ndax nag ak cofeel nag ñu am nag ci doomu soxna Maymunatu Mbàkke bi li des ci lettre yi nag ñu ngi leen koy jéggulu ndax ay kilifa ñoo ci doon sottantey xalaata minni ilayka ayyuhal ibnul baar al mubaarak ash-shaykh ahmadul mbaki aska salaamin wa ahsana tahiyatin wa ihtiraam lettre bii na ci bi ko nijaayam sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke bind sëriñ Abdou Khader Mbacke nag mi ngi ubbee lettre bi ci sant suñu boroom julli nag ci ab yonentam ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam lettre bi nga ma bindoon nag jot naa ci ginnaaw nag bu ma jotee nag ci lettre bi ma bindoon sa lettre bu rafet bi nga xam nii nag yónnee nga ma ko nag ba mu egsi ci man rafetlu naa ko dégg naa itam nag li nga wax nag ci biir lettre bi yow doom ju baax ji di murit saadeex bi te nga dëggal nag ci sa ginnaaw sa maam ji nga xam ne nii nag moom moo mel na weer ba tey nag di sa turandoo di sëriñ Touba Cheikhul Khadim ginnaaw bu ko sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke nag waxee loolu lépp nag ma ngi koy xamal ne nag lettre bi nga bind nag gis naa ko nag te bég naa ci yàlla na la yàlla barkeel yàlla na la yàlla defal sutura ñu teewlu nag lettre bii sëriñ Touba Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke nag doon tontu nag jarbaatam sëriñ Cheikh May ci lettre nag bu mu ko bindoon alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah amma baad faqad warada ilaya kitaabuka almustahsan wa fahimtu ma qulta fi barawatik ayyuha al ibnu al abar walmuridu alsadiq li cheikh aljaddi alqutbi alxamar wa sumiyi cheikhu al akbar wa farixtu biha gaayat alfarax wa soo delloo nag ci ñaareelu lettre nag bu sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke nag bindaatoon jarbaatam sëriñ Cheikh May ginnaaw bu mu nuyoo nag ni mu baaxoo nag di nuyoo ma ngay wax jarbaatam nag sëriñ Cheikh May maa ngi lay nuyu nag bépp nuyu nag bu gën a sell nag ci nuyoo yi nuyu boobu nag laa lay nuyu maa ngi lay nuyu nag nuyu boo xam ne ni nag day ànd ak mbégte ak ak teral yow mi nga xam ne nag yow yaay doom ju baax ji yaay ab xarit yaay ab soppe yaay tim nag ab sang ñu teewlu nag ñaareelu lettre nag bu sëriñ Abdou Khader Mbacke bindoon jarbaatam sëriñ Cheikh May ngiruk cofeel nag ci jarbaatam lettre yi nag liñ leen waxoon moom lañ leen di fàttaliwaat rek ñu ngi leen di jéggulu nag ci li des ci lettre yi lettre yi nag ay kilifa nag ñoom ñoo ko séqoon moo tax nag la nekk ci biir lettre ba dañ leen koy jéggulu usallimuka gaayata salaami maha al ixtifaali wal ikram ayyuha al ibnu al wal xill wal mu wéy topp nag ci ginnaaw nijaayam nag ba nim fi bàyyi ko ci atum 2013 mu nekkit nag ku yéeme bi muy jàng nag ci kër kàbbu melokaan wa mu amee woon foofu tax na nag waa tund woowu bari na nag ñu jaayante woon ak moom bi muy jàng nag ci dëkk boobu nag di melokaan bu melokaan wu baax woowu mu amee woon nag nekkoon na itam ku fonk ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul loo ko naxee nag ci maamam mu nangu ku bëggoon ngën gi mbindeef salallaahu taala alayhi wa sallam la lépp lu mu masaa gis ci aw këyit nag ñu bind ci màddinatul munawwara wala màkkatal mukarrama këyit woowu du ko sànni bépp mbuus itam nag buñ bind nag lépp lu xeeti nag ci yonent bi mbuus googa itam nag du ko sànni ku masaa jóge màkkatal mukarrama tàndarma sax boo ko ko indilee su ko lekkee ba pare itam nag xoox ba du ko sànni daana wax na nag lépp lu jóge nag ci ngën gi mbindeef wa sallam dañ a fonk bëgg mu bëggoon xaadim rasul ak ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam tax na itim lii di télévision wala rajo benn yoon rek la ko daa déglu ci at mi muy bu ñuy teg màggaluk tuubaa gi lu dul loolu nag télévision wala rajo nag jëralu ko déglu wala seetaan màkkatal mukarrama nag musu faa dem tukki moom benn yoon la ko def gambi nag la demoon nijaayam cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tuubaa xaadim rasul nag la àndaloon kër itim nag benn rek la ci am mooy kër gi jàkkaarloo kër nijaayam sëriñ tuubaa cheikh abdou xaadir mbàkke bi jàng nijaayam sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke nag moo ko féete woo woon ci biir kër nijaayam nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke nag la amoonum néeg ba ni ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke nag dogale fii mu dëkk ci maandoog bëgg lu baax daal ci la sax ba ni mu génnee àdduna ci atum 2013 sëriñ Cheikh May Mbacke nag mi ngi génn àdduna nag ci bisub altene ñaar fukki fan ak ñett nag ci weeru safar ci atum 1434 nag ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan ak nag ci weeru safar ci atum 1434 nag ci gàddaay gi dëppoo 7 janvier 2013 lundi 7 janvier 2013 la doomu soxna may Maymunatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa bi génn àdduna ci feebar nag bu ko tëraloon ci yóbbu nag guñ ko doon yóbbu ndakaaru laataa muy egg ndakaaru nag la génn àdduna Sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi ca wetu waajuram woon nag soxna may Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul ma soo delloo nag ci marché bi ko Baye Lamine Diop defal mi ñuy wax nag lu bare bare bare na ci dunduk Sëriñ Cheikh May rawatina njabootam gi mu fi bàyyi muy sëriñ moor mbàkke nag mi ko wuutu ak rakkam nag sëriñ jiili mbàkke soxna yi sëriñ cheikh may dëkkoo woon taalibéy sëriñ cheikh may yi nag ni ñu war a toppe njabootuk sëriñ cheikh may ci ginnaaw nag buñ gisul sëriñ cheikh may bi sëriñ abdu xaadir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasool nag demee màkkatal mukarama sërite bi mu indaale loon sëriñ cheikh may muy bépp yére nag bu mu daa sol nag ci dëkk boobu nag di màkkatal mukarama bi mu ñëwee itam nag sëriñ cheikh may daal la ko jox lu baree baree bari daal la ñu bàyyi Lamine Jóob nag tënkal ci marché nag bi mu defal sëriñ may ñu teewlu ko njëbër gépp la yar teg leen ci yoon wa siraatal mustaqima sëriñ Mor Soxna sax na ci moom woo fi rakkam lépp luy seen aajo moo ko gënal aajoom du juum ku sa bàyyi dul juum nga mucc ci juum sëñ Mor de day lu ga bàyyam dee saxoon jala sax wëreelul sann kër bàyyam gi génn ko moom lu mu ñàkk muñ ko te lu mu am naw ko noppi demul kër kenn it di ko di soxlaam te am na yitteem ngir yéen bi diis na te diisul kenn yónniwul it ay a naa ko xam naa waa ji lépp de moom ma sant nag soxna may may acc dellu di sant taat soxna may yaata may alhaji isna hakim wala fii nee ñu béccub liir di neex ndaya may jàpp yi waggam waggi suñ moor jàpp nañ fii te moom na yàlla mottali yéene sëñ bi lépp mu mat ngeen jëf ko jëf ju rafet ba mu tàlli ñaayi di moom te yàlla aar ba kër gii ngor gu rëy gi ko sos muy seenu sas nag bu du booy yàlla mën na ko moom suturu si yàlla muur kee yàlla na mu góob warul jox addiyaat waruloo kuy nuyu nag te sujootoo waruma war na ci moom màggal sëriñ seex di mànkil doom ja loolu doxul du xel itam kon na ngeen lu bokk ci moom seeni sëriñ ñi ngi ci yoon nag di dox taxawuñ ko topp seen tànk yi da fa mu moom sëñ seex di taalibe yii toppoon ko lam ca bëggoon sëñ mor di képp ko sellal nag mu sol ko ci moom diggante sëñ seex maayeg seex ji li leen melu ni fu mag summi ko dafay bàyyi sagar ci donom seetal ma seex abdou xaadir wéeru la ma am ca màkk ak madina yi jaamooti rekk borom mboolem lu doon yéere yam daa sol ca booba barab la summi jox ko sëñ seex may di may ko ko moom jox na ko jëllaa bi jox ko pax ya kaala kurus siis ba àllaa ji la mu doon sol la summi ci moom yëmul ca loola ba mu waaj gile kër juróomi fan njëkk waajtaay wi di lim defe moom seex jiili nag dafa jox suñ seex butéel ba mu fees ak ndox mu ñaan ca mu wax ñaan gi nga fonk ko moom loo aajo wooti lu rëy rëy bul ko ñéeb lu waxal ngir loo ci ñaan yàlla sotti loola dégg ko doom amoon na sarla gu xànjar soxna may munati moom moo ko may seexu naa may ngir mu fa ci téem wala fi nee ñi ko sonnal waaju baax jariñu ko sax ci sunna te sonnal waaju baax texe moom sekkar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 Touba ginnaaw sëriñ Cheikh May Mbacke seen maam jala nag di sëriñ Abdul Xaadir Mbacke te seen waajur wa léppam nag sëriñ Touba Cheikh Abdul Xaadir Mbacke la moo tax itam nag dafa fonkoon bisub sëriñ Touba Cheikh Abdul Xaadir Mbacke boobu tax na njaboot gi nag delloo ko njukkal nag ci bisub sëriñ Touba Cheikh Abdul Xaadir Mbacke boobu di ko ci fàttaliku waale ñuy ñaan ca sëtub sëriñ Touba Cheikhul Xadim ba doomu sëriñ Moor Soxna Mbacke ibnu Mamor Jaara ba yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew